mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen spécial débat Faram Facce Faram Facce nag mbokk yi ni ñu koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi euh, dikk nañu ci ak yéen am ci mbégte bu yaatu ci euh, jotaay boo xam ni dañ ci càmbar Faram Facce ci waxtaane ci lu aju ci actualité politique gu réew mi euh, tey nag ñu am ci mbégte di ci dalal ñoo xam ni ràññee nañu leen ku ci ne ci sa taxawaay ci wàllu politique waaye sa taxawaay itam parti bi nga xam ni fa nga bokk ràññee nañ ci sa taxawaay bu baax ki ci jiitu di le ministre Babacar Gaye Gaye amee kaddu parti démocratique Sénégal monsieur Gaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Ngagne. waaw ñu bàyyi la rek nga profité ci nuyoo mbokku téléspectateurs yi. waaw maa ngi am mbégte lool di ñëw fii ci plateau TFM. Euh, pour waxtaanee ak faram-fàccee li nga xam ne moo nekk euh, ali kalaj ci réew mi. Mm-hmm. di ci am euh, dal ndax sant yàlla bu baax boo ko seetloo. Mm-hmm. ata ngi nii dafa mel ni TFM buñ ma nammul it man namoon naa leen. tout à nañ léegi ndax euh, li ko war mooy euh, yaram wu sutadi. tout à fait waaye nag euh, fii lay profité pour wax leen ne leen. Mhm. jël naa service. loolu daal mooy li nga xam ne mooy lu bees. merci beaucoup jërëjëf monsieur Gaye Babacar ñu ànd ci ak le ministre itam Youssou Touré monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Pape Ngagne ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokku. waaw maa ngi rafetlu. Euh, maanaam dalal bu ngeen ma dalal fii si euh, sa émission bu am solo bi faram euh, faram fàcce évidemment yàgg naa fi ñëw aussi tout donc di sant yàlla teg si yonent bi sa alayhi wa sallam suñuy waajur mm-hmm. sant aussi borom kër gi muy ministre Youssou Ndour sant la yow muy def émission bi sant euh, nuyoo. Mhm. gërëm sant. technicien yeeg ñëpp daal ñu fi nekk. yow laay desal sax monsieur le ministre ci ñu ubbi waxtaan bi euh, dañ koy tàmbalee ak li nga xam ni monsieur le ministre Babacar Gaye tudde na ko sax Ali Kalet ji waaye yaakaar naa yu bëri lay doon nag ndax actualité bi ku ne xam na ne liñ ci mën teg loxo bari na waaye li ci gën a fës bokk na ci coow li nga xam ni dafa aju ci wàllu terrorisme ñu koy tudd ci réew mi waaye la république génn waaye génn bi mu génn itam euh, mu aju ci maanaam tëkku ñi nga xam ni ñoo fare ci ku jégi euh, ci xamal leen ni lii duma ci kaf bëgguma ku ko politiser euh, bëgguma ko ci wax lu waxuwul alors menaces yooyu ba la ma si ñëw dañ koy dañ ko dañ ko ràññee ak président Macky sal ndax maa ngi fàttaliku bu yàggul rek bi jàmbar yi war a dem fële ci Arabie Saoudite mu ne wax naa ci li may wax un point un tiré duma ci dellu siwaat monsieur le ministre ndax jàpp Euh, discours yu mel noonu nga xam ni dafay faral di ànd ak xoxutal war nañ ko xaar ci président de la république. wax dëgg yàlla laaj boobu nga ma laaj <coughs> man daf may euh, wax dëgg yàlla euh, day doy waar. <laughs> parce que ku xam président Macky Sall xam ne lu mu gëm nature am du wax ju dëgër du xaste du naan mu ngi peut-être tënk liberté yi moom rek mooy décider. wax dëgg yàlla loolu dana ma jaaxal mm-hmm. bu nit ki ne un point c'est tout communication bu mu doon def mm-hmm. euh, si wax ji mu ne nañ ko yemale foofu mm-hmm. parce que boo jiitee réew da ngay fexe réew moo jiite mi euh, réew mi nekk si dal parce que nag Pam Ngagne ñun ñëpp xamante nañu président Macky sal même boo àndut ak moom nga doon adversaire am du saaga du xaste du jànni lu mu yore nag nekk un président la république dafa am ay responsabilité si réew mi te responsabilité yooyu aussi kenn mënu koo tere mu exercer ko loolu waxuñu bu mu ko exercer man ci waxin bi rek laa lay wax. maanaam bii dafa nekk bu bees bi am na boo xam ne mën nañ ko jëlaat. mu wax ko euh, loolu rek laay laaj. maanaam ci forme bi muy bi muy bi muy waxee. ak bu mujj bi nga xam ne mi ngi wax ak opposant yi ne leen na bëgguma kenn ko politiser coow lii dama bëgg ku nekk xam ci sa bopp loolu laa ni. <laughs> mais loolu wax jooju. ma ne loolu ana wax bu si dëgër. d' accord bu ñu jëlee politique. Mhm. dugal ko si loo xam ne. d' accord suñu ëllëg. d' accord mën na si yàqu. Mhm. moo tax mu ne bu sañoon. Mhm. bu sañoon wax dëgg yàlla wax ji yem fii. ñun ñëpp ñu takku. Mhm. pour que musiba bu ñuy séntu bi bañ fa egsi. d' accord d' accord monsieur le ministre monsieur le ministre Babacar Gaye yow itam bi nga déggee yéen la ko jëmalee daanaka kàddu yooyu euh, bu yi mu wax yëpp daanaka yéen ku jéggi la ci tëkku yéen la ciy jublu euh, mais bala ñuy ñëw ci solos wax si ak wax ji maanaam waxin bi nga xam ni dafay ànd ak xuppe ban dégg-dégg nga ci am nag na ko gisee. waaw loolu. boo ko seetloo dafa nekk euh, marque déposé président Macky Sall wax di xuppe ñëpp jàpp nañ ci discours mm-hmm. muy faral di wax ak askan wi comme si moom président bi mu doon dafa nekk buur di bumi wala sax dafa nekk yàlla. déet la ci perception ndax discours. Euh, politique ci wàllu communication li am solo du li ngay wax wala li nit ñi foog ne loolu nga wax li am solo mooy perception ñu ci am te sénégalais yi dañuy percevoir ne Macky Sall bañ koy tuddee Macky ñàngal ci jëmmam ci kàddoom dafa foog ne ak ci jëfinam dinaa ci ñëw que moom liberté publique mhm. yi ñu inscrit ci constitution mu bëri ay article lool article sept ba article vingt cinq yoonam nekku ci erreur la ndax nag war na bàyyi xel ne ay liberté bàyyee ko ko moom ak ay droit am moo tax mu nekk président mm-hmm. bu ñépp ñu ko jiitu woon def ni moom xuppaate jël tëj kaso ku wax nga dugal ci kaso opposition du manifester kon foog naa ne moom du mas a yegg si tey bay toog nekk président mm-hmm. dama bëgg mu delloo si boppam xelam mm-hmm. xam ne réew mi Senghor jox Abdou Diouf mu jox ko Ablaye Wade ci jàmm Ablaye jox ko ci jàmm na fexe ba jox ko nit ñi ci jàmm te bàyyi nit ñi ci jàmm amul benn pouvoir restreindre les liberté mhm. opposition bi du ko may fu mu yàkkee nakam ba naan dafay jéem a restreindre les libertés d'accord yooyu mhm. na ko def ñi nga xam ne daf leen jaaxal ku jàkkaarloog Senghor jàkkaarloo ak président Abdou Diouf ak Collin ak soldateskam di xeex pendant vingt six ans ba yegg ci pouvoir doxal ko am une opposition très violente nga fexe ba génn ci ba passer la mai te tigga tojul dama yaakaar ne bu ñu la joxee ndaw léegi am nga la war a def maintenant ci dans le fond forme bi moom dans sa communication. d' accord baal après ñu ñëw ci fond bi s'il vous plaît forme bi laa laa ak ak monsieur Touré s'il vous plaît après ñu baal ma après ñu ñëw ci. Euh, donc monsieur Touré euh, dégg li nga xam ni moom la bëgguma aussi vraiment ñu toll dellu si yi ñu ñëw ci forme bi ci ci fond bi comme ni mu ko sollicité euh, ni mu ko souhaité mais comme yow yaa ci war a addu ndax xuppe bi. feeñ na ci ci wax ji yow même bu fekkee da nga jàpp ni ci xëy na noonu la war a waxee euh, dëggal nga ko waaye bu ñëwee nag ci li waral mu wax ko muy wàllu coowal terrorisme lii ak ci réew mi euh, fi mu toll imaam yu ci bari dem ci kaso bi lii di muuraay yi nit ñi am ci seen ngëm lool am ñoo xam ni daanaka seen muuraay loolu moo leen gënal seen bakkan ñu jël ci ay décisions yoo xam ne mën na leen tàqale ak moom ndax yaakaaroon ni amoon na beneen forme waxtaan ak beneen façon bu ñu ko mënoon defee buy gën a mën a yomb te du ànd ak fitna. nga baal ma loo euh, Pape loolu sa xalaat la ñu ngi naan fitna ak xuppe mhm. yaakaar naa président de la république bu toogee ba gis ni mhm. am na loo xam ne li mhm. war na si sa euh, sànni kàddoom pour que mbir yi wax dëgg yàlla gën a jaar yoon yaakaar naa ni lu mu war a def rek la def bu fekkee nag xuppe lañu wax fitna dama yaakaar ne sama xarit euh, Babacar Gaye dafa foog ne sénégalais yi dañoo amnésique maanaam yorewuñ mémoire xam nga man gisoo ma ma téye kayit moom mu ngi rangale ay kayitam télé bi nag du ko wone mais bu ñu ko wonoon mu ngi rangalee kayit euh, président Macky Sall 2012 la ñëw au pouvoir man bugguma sax si mbiru PDS di si dugal ancien président lay Wade parce que dañ koo war a may cër. Mhm. dañ koo war a fonk respecté ko parce que président Macky Sall ak ñum àndal dañ leen a yar dañ leen a yar yaru diine yar leen si jikko bu baax ak jikko ak jikko bu rafet. d'accord PDS bu ñu nekk bi opposition. Mhm. lu fi nit bu fi dee rek PDS la. c'est-à-dire que. Mhm. loolu la tubaab di wax amnésie il ne faudrait pas que ñu foog ne y a amnésie collective dans ce pays. dama la ne parewuma may ma may ma tuuti mais question bi aussi. dafa laaj tontu. parce que bugguma aussi nga. non soriwuma maa ngi doog a ah, jot. waaw d'accord waaw. ma ne mhm. du ma de du ma gas sax fu gën a xóot am nañ fi ay assassinat politique ay crime politique ku si mel ni juge boo xam ne bi adduna bi yépp ko nawoon Babacar Seye ñu ko reyoon ñi de génn nañ leen gracier leen événement policier yu fi amoon yi. waaw mais lu ko lu fi indi. lii non lu ko fi indi. waaw. mooy lii muy wax si xupaateeg dëgëral wax lan mooy dëgëral wax buñ la jiitalee. waaw boo gisee ni am na loo xam ne li par exemple jaarul yoon. Mhm. mais yow la fi nit ñi teg. yàlla teg la fi jaarale ko si nit ñi. waaw yow boo gisee loo xam ne li ëllëg mën na indi réew mi fitna. waaw mais wax dëgg yàlla. nga ne leen. mais ak nañ koy waxee rek. monsieur le ministre yow da yow nooy wax yow noo waxee na xam nga ko. Mhm. mais ku nekk ak sa bënin. man mënu ma la reprocher. mais loolu nag warul egg ci président ku nekk ak sa mënin. mais boo xasee nekk président. président nit la. ah boo xasee nekk président li war ñëpp waratul la. xëy na ku fi ñu fi nekkoon ñi. waaw ñoom ñoo foogoon ne nit plus lañ. mais ñun nit simple lañ président nit simple la humble humilité yaru am teggin. xamut xaste xamut wax lu ñaaw. d'accord donc man dama bëgg. Mhm. sama xarit euh, Babacar Gaye sama xarit la woon yàgg na sax wax dëgg yàlla dama bëgg bu ñuy waxtaan. parce que réew mi ñoo ko bokk. Mhm. du yàgg yàgg yàgg ba APR moom réew mi. d'accord wala PDS donc bu ñuy waxtaan. Mhm. kàddu gi na jéem a sell tuuti. d' accord léegi monsieur le ministre euh, kàddu gi nag jéem a sell waaye man tam li may sàkku ci laaj yi pour ñu mun a dem parce que waxtu la mooy laaj bi laaj naa la ko wax naa la xuppe bi wax nañu ci mais li tax mu yëkkati ko muy wàllu terrorisme ci laa la ci laa la ci laa la interpellé bëggoon naa ci am sa xalaat ni la amuloon beneen forme communication bu mun woon buñ mënoon teg mu jóge ci président de la république ak gouvernement am ñu utiliser ko pour consensus ak juboo mën a am lu dul xuppe ndax xalaatuloo mën na nekk boo gisee ni xuppe la nee na du ñu nangu. waaw du ñu nangu lu xew si yeneen réew Sénégal nga xam ne dañoo am suñu cosaan suñu diine. am kilifa diine. mais ci laïcité aussi. comprendre nga laïc laïcité diine bu fi mën a am laïcité ngi bu fi nekkee. waaw xam nga lu président Macky Sall ak gouvernement di doxal. waaw lépp loo xam ne li du gaañ nit. waaw si la ñu nekk. d'accord lépp luñ gis ni ëllëg. Mhm. mën na indi. ay tuuxi doonu. d'accord ay bakkan yu rot. tout à fait bu waxee ci voile intégral. waaw kooku yaakaar naa ne sénégalais yépp rafetlu nañ ko. Mhm. parce que boo jógee nga solo. Ah. nga solo. muur sa kanam bul ne sénégalais yëpp rafetlu nañ ko ñi koy def ay sénégalais lañ. mais dama ne. ñi koy def ay sénégalais lañ. ma ne waaw ay sénégalais lañ. ñooy mu ñooy muur ba taj. Pape Ngagne boo ma invité woon ma waaw boo ma invité woon ci sa émission bi. Mhm. mane naa wax lu ma neex doo ko nangu. parce que yow yaay diriger émission bi c'est sa responsabilité la président Macky Sall dañ koo jox. responsabilité mu jiite réew. donc bu ñu gisee luy yàq. Mhm. loo xam ne li mu ngi. si dëkk yu ñu sës déjà. dugg na fa. d'accord donc nit booy dox. war nañ gis sa kanam. d'accord munoo ne yaa ngi dox si biir nit ñi yow ngay gis nit ñi te kenn du la gis. d'accord d'accord monsieur le ministre léegi ñu ñu ñëw ci ni nga ko sàkk woon euh, monsieur le ministre Babacar Gaye euh, muy ni ma ko abordé ak euh, monsieur le ministre Youssou Touré li waral coow loolu yëpp moom mooy fitna gi nga xam ni moom jàpp na ni mën na tukkee ci li mu gis ci wàllu muuraay yi ak ni mu ko waxee ci wàllu terrorisme ak ñi nga xam ne jot nañ leen cee jàpp. loolu moo ko waral sant bu baax. nga may ma rek il faut que nag ma jël temps wu tontu ko parce que dama yëndi kur dama indi chrono pour xam temps de parole yi nu muy demee. bi jiitu mooy kayit yi ma yor. wax lu ma wóor a tax. lu kenn dul weddi. bi des mooy euh, nee na réew mi ku fi dee PDS moo la rey. dama ko bëgg wax ne ko Sénégal yi may dégg aussi xam nañu ko. réew mi bi ñu commencé politique ak léegi 74 la 2012 dañ perte pouvoir fanweeri at ak juróom. Macky Sall mu ngi ñëw ci ñun 1989. jàpp naa ne mu ngi bàyyi ci ñun 2009 kon jàpp naa ne mel na ni ñaar fukki at ñoo ànd. kon dafa mel ni lu PDS def rek. Macky Sall bokk na ca. rawatina ki mu tudd mooy mu ne assassinat Maître Babacar Sèye. damay wax fii askan wi ñëpp di ma dégg di jël ay témoins ñi ay avocats lañ ak président Doudou Wade loi Ezzan. Mhm. xam nga dañ ne. PDS mhm. ñoo ko def. Mhm. bureau Macky Sall lañ ko tabaxee primature. Ezzan makki moo ko tànn pour mu porter la loi Ezzan Doudou Wade est mon témoin bu subaa bu ma dig wooyee ak gendarmerie ma jox leen ay firnde yu wóor ne Macky Sall moo préparé loi Ezzan. moo choisir Ezzan ki nga xam ne moo doon sama suppléant Kaffrine ma nekk responsable important du parti et de l' assemblée nationale ñu jéggi ma jox ko Ezzan mhm. lañ ca def yëpp xam naa ko bu ma dig wooyee ma wax leen ko mhm. kon du ma dugg ci débat boobu parce que taxuma fee ñëw mais dama doon leeral rek Sénégal yi dégg ma bi ci des mooy li nga xam ne mooy terrorisme wax ji dànkaafu tontu naa ci li mu wax ne euh, dafa dul nangu nit ñi di am yenn col yi nga xam ne mhm. méngoowul ak suñu aada ak suñu cosaan mhm. pam ngañ culture dafay dox civilisation dafay dox Macky sàll bi mu koy wax costume bu mel nii la sol lii du suñu aada du suñu cosaan mhm. suñu aada ak suñu cosaan tey bu fekkoon dañ koy méngale ak ni ñuy doxalee ñàkkul bis boo xëyee danga nga gis jigéen ju mat jigéen jegemaar wala jeeg wala ku nàmpal ba pare def weeni kese parce que solul mbubb te suñu aada bu jàppee culture africaine la wala ci ay ethnie ci Sénégal du garaaw parce que dañ ko tàmm parce que dafa bokk ci ñun yére yi ñuy sol sa sabadoor bi moomuñu ko mbub mii mu sol moomuñu ko xaftaan la marocain yi ñoo ko créé lan moo ko indi brassage culturel man dama nanguwul en tant que libéral quelqu'un boo xam ne dafa gëm les libertés publiques mhm. parce que loolu mooy sos suñu idéologie liberté individuelle mhm. kenn ku ci nekk li nga gëm ne moom mooy sa ngëm-ngëm da ci war a dox rawatina suñ constitution ñu consacré loolu ci article huit mhm. liberté de culte doomu aadama bu ne am na sañ-sañ lii culte bi mu choisir ci religion mu doxal ko naam man nangu naa ne am réew ci àddina bi tey war nañoo organiser wu. Mhm. ci anam yi ma gën a sellee anam yi gën a respecté droit de l'homme pour que lépp lu jëm ci terrorisme ñu jéem ko aar. aar suñu bopp aar suñu réew. mais nag loolu day war a tax nga mën a ànd ci lu mel nii kon. déedéet déedéet ci méthode bi laa nanguwul ak moom sur les principes de la lutte contre le terrorisme ànd naa ci loolu. Mhm. waaye du ma nangu nag ñu yaakaar ne terrorisme mooy l'islam dinaa ko wax lu tax. non moom jaawalewu ko. parce que boo déggee discours am di nga xam ni jaawalewul terrorisme ak l'islam dama ne képp ku yaakaar ne le terrorisme. parce que wax na ko mu jëm ci imam yi. <laughs> tax ma ne la dafa jàpp ne waxu ko jëmale ko ci labbe yi ko jëmale ko ci rabe yi waxu ko jëmale ko ci mafio yi waxu ko jëmale ko ci homosexuels yi waxu ko jëmale ko ci état bi dama ne l'islam la joxoñ foofu nag lay ñëwee pour wax Sénégalais yi lan mooy terrorisme. c'est important ñu xam lu tax. d'accord terrorisme mu ngi jógee ci terreur. révolution 1789 France bi ñu ci paree en 1794 la ñu commencé jàpp ay français ay ñoo xam ne doomu France lañu cinq cent mille personnes emprisonnées. Mhm. trente mille guillotinées ak dix sept mille yoo xam dañ leen fusillé bañ ca jógee ci biir euh, euh, euh, civilisation occidentale. ci lañ xamee ay attentat di rey 1800 lañ commencé di ko def di ko def ba premier attentat bi ñuy jëkk am mu jóge ci confession. te ñëpp du ñu woon ay jullit. déedéet dégg li ma la wax. c'est ok loolu leer na. Mhm. terrorisme d'État. Mhm. terrorisme par euh, action politique. d'accord mafiosi. d'accord ñu ngi commencé am le premier acte boo xam ne dañ ne c'est confessionnel. voilà nga baal ma rek tënkal ma définition bi s'il vous plaît. Euh, boo ma bëgg a boo ma boo da nga may baal rek je vous en prie non non man. Mhm. waxuma fii waxu dagg santé. Mhm. man damay wax pour askan wi jàngat. Mhm. pour ëllëg. d'accord bu ñu xamul dañ dañuy lëndëmal seen i xel te réaction bi njëkk am ci terrorisme Menahem Begin ak Irgun seen association moo ko créé 1945 150 ans après les premiers attentats. la ci confession islamique et euh, religieuse door a dugg xam nga kañ la ci l'islam dugg 1979 1969 70 palestiniens yi ñoo attaqué benn avion boo xam ne alal moo ko moom ak euh, israéliens yi. Mhm. en Gén en Suisse ci lañ commencé li nga xam ne tubaab yi le monde occidental ñoo ko amoon comme forme de lutte pour résister à une certaine oppression ci la ko euh, maanaam pays arab yi commencé jàng. Mhm. waaye waaye bu ñu toogee ba ñun Sénégal islam dugg fi septième siècle neuvième siècle mu dugg Afrique yegg si si ñun ñu ngi jaakaar dixième onzième siècle ñuy dem ba ñu soppee suñu doxalin mais l'islam du rek bi ñu foog ne moo nekk Sénégal am na ñoo xam ne ay waabit lañu ñii ay sunnite ñii nekk ay euh, chiite ñii nekk ay yeneen mais kenn ku ci nekk dañ la war a bàyyi sa liberté de conscience moo tax ma ne mhm. c'est pas parce que nit sol na voile muuru na muuru na ba daj. ñu ne kii. Mhm. xam nga lu tax ma ne muuru na bu daj bi dañuy tàmbali bu ñu paree ci muuru na bu daj bi dañuy def muuru na li ñu def France lañ koy nattee li tax ma xam ne bu ñu paree ci bii ci muuru na lañ jëm dama gis ay école fii moom ministre la jàngale la nekk école biir Sénégal suñu réew réewu jullit ay école donte dañu nekk école boo xam ne privé catholique ñu ne xale yi ku ci muuru du dugg ci école bi ba dàq leen yëg ko. d' loolu damay bañ. Mhm. Macky Sall waxul dara. d' accord kon bu ñëwee tey ne. Mhm. dañu bëgg ku fi muuru complètement duñ ko fi nangoo. d' accord boppam la waxal. voilà na bàyyi Sénégalais yi. d' accord na yar Sénégalais yi. Mhm. na fexe xale yi nekk situation boo xam ne. du ñu soxla dem ci ay yaat. d' loolu moo gën nga ay dànkaafu ay nit ñi ci ay. violence ak yu demee noonu. d' accord monsieur le ministre Youssou Touré euh, ci liberté yi la taxaw parce que abordé na ko ba wax ci article 7 ba 25 ci liberté de culte man junj naa la ko itam ci laïcité loolu yëpp bu ñu ko tegee ndax jàppaloo ni itam décision bu mel nii mën na indi njuumte gouvernement bu fekkente ni teg na ko teg nañ ko ci yoon. temps liberté waaw temps boo ko nga seetaat nag temps boo. ñuy répartir allez du ñu am problème mu temps. incha allah c'est ça ñu ngi koy bëgg am nag. waaw xam nga danga ne liberté de culte. xam nga loolu nga wax. kan moo fi nekkoon dàqe ab catholique ba mu dugg biir église ñu fekk ko fa xam naa président Macky def na ko président Macky Sall du wax kat dañ koy wax tout le temps. <laughs> liberté de culte daf ko gëm. wax na fi ba tudd homosexualité ñu ne waxuñu waxi franc-maçon mhm. homosexualité mooy un des rares chefs d'État bu taxaw si kanamu koo xam ne ki si àdduna moo yor réew moo xam ne ñoo fi mën si àdduna président Macky Sall ne ko paree guñ ci paree guñ ci waaw ah, ah. ah, paree ci paree guñu si loolu nga bëgg a tuddee njàmbaar ma ne ma ne waaw président Macky Sall du wolof ku nekk ak looy loo dégg bu mu ne ñun loolu ànduñu si mais terewut euh, euh, Pape Ngagne ñaawteef boobu ñu gisoon nga jël lu toll ni église di dàq koo xam ne ki parce que ñun fii catholique jullit protestant ñépp benn lañ mm-hmm. nga war a respecter lieu de culte mësagu ñoo gis fu président Macky Sall taxaw rek viole lieu de culte au contraire au contraire maintenant lii mu wax loo gis waxtaan la dañ koy pencoo euh, affaire voile bi ñu newuñu ko muuru man sama doom bu jigéen day muuru mais dañ ne comme tey jii am na ab danger buy gete suñu réew nañu fexe ba nga xam ne ñuy rey ni nit ñi ñu fexe ba duñu leen may opportunité bi walla possibilité bi mhm. loolu rek la pour aar Sénégal la pour aar askanu Sénégal la mais du pour restreindre ay liberté bu fekkee restriction liberté wax na ba tudd loi Ezzan ne président Macky Sall mhm. moo fa nekkoon mhm. man de yaakaar naa ne Babacar Gaye nag moo ma man si politique moo ma si ëpp xam-xam mhm. nga nekk si assemblée nationale wala gouvernement gouvernement boo xam ne bi ku ko fa teg mooy la première institution du pays ngeen ñëw loi bi di jaar majorité bi nangu. Hmm. président Macky Sall moom mooy taxaw ne nanguwuma mais lépp lu fi amoon si ñaawteef ak si dëngate buñ fi toogee ba léegi moom président Macky sàll si loolu la taxaw ñun ñun yaakaar yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa suñuy waajur. d'accord kilifa diine yu fi nekk yi. muy Touba muy Tivaouane muy Niassène. Mhm. ñun ñooñ la yaakaar. d'accord donc bu ñu amee. mais dafa am nag ñu yaakaar ñeneen. Euh, yaakaar leneen moo tax voilà ñeneen yaakaar leneen. d'accord nañu te ñu nekk ci laïcité aussi. ma ne d'accord nañu Pape te ñu am carte nationale d'identité bi nga am. Euh, Pape Ngagne ma ne la d'accord. voilà mhm. d'accord nañu ni. dañu am liberté de culte. d'accord liberté de culte boobu. Mhm. benn yoon nee naa la lañ ko mën a mën la ko mos a menacé mooy si seen nguur. d'accord tey jii. Mhm. Macky président dana taxaw di attaqué wu. à des libertés individuelles à des waaw wax na la jàngalekat nga am na école yoo xam ni tere nañ fi muuraay information boobu jot nga ko. ma ma ne. Mhm. moom xam na ne man jàngalekat laa. syndicaliste laa woon dama doon dugg ci école yi bu fekkee nag école privée catholique privée moo jël ay mesures mënuma ko commenter parce que xaw ma lu ci loi bi wax. peut-être moom xam na ko. d'accord d'accord loolu leer na. non non je vous en xamee dama lay damay wax. d'accord mais xaw ma bi wax donc mënuma ci sori. parce que ñun on est honnête quand même. d'accord ko yëkkati lu yàgg mais. dama bëgg leeral tuuti. ci li ne xamu ko c'est c'est terrible instituteur. Mm-hmm. ministre mm-hmm. secteur éducation mm-hmm. xamul ne l'école de la république l'école de Jules Ferry mooy dox Sénégal dama jaaxle ci président Macky Sall ñi muy tànn leen jox ay responsabilité amul benn école boo xam ne génn nga ci sart boobu y compris enseignement catholique pourquoi parce que quand même mënuñ suñ biir Sénégal école bi nekk de même bu fekkee dañ naan privé catholique. loolu ci administration bi la mën a nekk. mais lekkool école elle républicaine bu ñu nangoo ay nit di takk ay croix di ñëw ci école ba war ñoo mën a accepter xale bu jigéen bu bëgg a suturaal boppam muuru waxuma def bubka mais fexe ba cëram yi nga xam ne mooy ay karawam ay awram bañ a feeñ. Mhm. dafa bokk ci suñu aada. dafa bokk ci suñu religion. Mhm. loolu dama ko koy rek. jottali avant nga poser sa question parce que man lii moom mënu koon bàyyi mu jàll. d' accord euh, am nga ci ci ci li li mu wax ni. Euh, maanaam am na am am maanaam am na mbetteel ci yow. ci lu toll noonu. nga ni mënu amul loo ci mën a tontu. Euh, mu am bi mu ci yow sax moom la am ci président de la république itam ci tànneefam. waaw mais ma ne waaw xam nga man. Mhm. ñun dañoo yar. d' accord. si yaru diine. d' accord. si yaru aada ak cosaan xam nga mu ngi wax formation waaw maanaam tàggat donc pour moom ñun tàggatuñ ñu mhm. du dëgg euh, xam nga loolu mooy wone rek mhm. loolu mooy wone mhm. ñoom ku jegi surtout ñoom PDS d'accord limite yu ñu am au plan intellectuel au plan psychologique au plan psychique dédoy non c'est des gens qui développent des limites extrêmement inquiétantes pour l'avenir de ce pays parce que ñii yàlla baax na d'ailleurs ba 12 ans yi yem fa war a yem fi donc si loolu ñun ñëwuñu fi pour di jeebaane di xasteeka saaga. d'accord ñun dañ fee ñëw. ñu invité ñu pour que askan xam nga lu ñuy waxtaan d'accord am luñ si jëlee. mais pas pour ay diine. d'accord gis nga may ma foofu laa yemal rek gis nga mon ami parce que moom sama xarit la yàgg naa nekk sama xarit gis nga président Macky Sall da ngeen ko xool mais da ngeen ko bàyyi da ko fi bàyyi parce que du leen fekk si mukk si terrain wax ju ñaaw si terrain xaste si terrain saaga koo xam ne ki foo ko tàllalee micro lépp lu mu wax lu ñaaw la. d'accord jullit ñun de dañoo yar. Mhm. si loolu. comprendre catholique yi la même chose. ku si nekk rek yar nañ la si loo xam ne sa moroomu doomu aadama. d'accord da nga koy may cër sàkkantement koo xam ne dañ la ne mooy première institution. yow nag bu fekkee nee nga yaa ma gën a jàng ok y a pas la concept nañu fexe Pape Ngagne waxal ñu kuy invité fii ñu def débat en français def nañ ko fi je crois buñ paree du yow yaay apprécier du man mhm. c'est le peuple sénégalais qui va apprécier qui va apprécier. mais ñëpp ñu fi président Macky Sall. mais nag sëñ am njàng ne dépendre ci ci ci làkk français wax dëgg yàlla. mais mais je vous en prie. ma monsieur Touré monsieur le ministre waaw d' accord mais nga baal ma rek xam nga aussi bu fekkee daf la interpellé man ma yor euh, débat bi c' est normal ma wax la. parce que ah, moom daf la interpellé directement ci mbetteel bu ma am ci yow loolu moo tax ma delloo la euh, kàddu gi pour nga mën ci réagir. Ah, alors léegi euh, monsieur le ministre. Hmm. ñu aborder leneen rapidement parce que vraiment bu ñu toppee ponk yi xam naa ni ñii seetaan mënuñu doyal sax ci aspect bii nga xam ni moom mooy wàllu terrorisme bi ak ni waxtaan bi demee mais faaw ñu yëkkati leneen parce que dafa am euh, monsieur le ministre sax laay laay ñëwee ci kàddu boobu euh, monsieur Touré muy ñaari yoon muy Aminata Touré muy président de la République ñëpp dañu aborder mbiru CREI biñ ko abordé ñu wax ay yeesal yu ci war a am loolu bi mu amee mu bari ñu teyal seen xel tayal seen xel bi mooy naka lañuy mën a yëkkatee lu mel noonu ci topp ay nit ci alal ju lewul am ci ñu ñuy jàpp ci kaso bi am ñu ñuy waaj a jàpp lu ci bari am ñu ko naqarlu ci doxalin bi ñu ciy tudd ay coppite ndax loolu du tey xel. waaw ma xam nga nit bu gëmee yàlla day xam ne kàddu bu mu wax walla lu mu def. mën na ko jëlaat defaraat ko ba mu gën a méngoog lu askan bi di xaar donc loi yàlla rek c'est ñun nag wax dëgg yàlla ñun moom dañoo gëm yàlla dañ ko gëm lool sax donc duñ def dara ne lii moo fi gën du ñuy jéem a du ñuy jéem rek essayer rek du ñuy jéem buñ gisee ni fii kat lii loi bi teg nañ ko fi mais tey jii am na loo xam ne xëy na war nañ ko si yokk mm-hmm. pour mu gën a wuyu lu sénégalais yi di xaar mais loolu loolu kay buñ ko defee sëñ Babacar da ngeen a war a tàccu comprendre nga parce que réew nañu fexe di bañ a nekk ci ay position noon duñ ay noon am na fu ngeen ñu mënee am na fu ñu leen mënee gënuñ leen gënu leen ñu mais nag lépp loo xam ne dafa war a am nañ ko waxtaanee CREI bi lu parfait moom ñoom nag foogoon nañ ne yàllaa leen yónni pour que ñu ñëw des ci Sénégal def ko sax empire walla royaume mais ñun gisewuñu noonu jiitu réew ak gouvernement ak parti bu fi nekk ñun luñ gis ay nit dong lañ bis bu nekk di dañuy juum bis bu nekk danañ def lu rafet mais xëy na aussi def nañ saafan ba parce que yàllaa ñu ko bindee nit motut donc kay ñun lu ñuy xaar ci kujje du seen yii ñuy def. waaw man it li may xaar mooy nga gën ma leeralal vraiment <laughs> euh, lu non coppite yi parce que aussi ni nga ko abordé ni nga ko c'est vrai dégg naa lu bëri ci moral mais bëggoon naa vraiment nga wax ma aussi. lu leer xam nga Pape Ngagne. xam nga Pape man man bëgguma bëgguma di wéranteeg yow. d'accord bëgguma di wéranteeg yow. xam nga débat la <clears throat> sama xalaat laay wax. d'accord comprendre nga yi. boo jëlee par exemple sa xalaat dafa war a wuuteeg xalaatu ki nekk si oh, mbedd mi dafa war a euh, wuuteeg xalaatu keneen ak keneen da ngay toog ci conseil de ministres. waaw yaa ngi may xas mais jërëjëf monsieur le ministre non nga baal ma non baal naa la ma dama la mhm. ñu nekk si mbedd moomu ngay wax. waaw waaw ak Youssou Touré mii. Mhm. ak bii. Mhm. comprendre nga la wax. ñu nekk ci mbedd mi dañu toogul ci conseil des ministres. comme yow moo tax ma rek waaw ma da nga fa am yàlla daf la may boole la ci ñooñu. man tànn la boole la ci ñooñu man du ma baadoolo man Youssou Touré. waaw ba may toog biir conseil des ministre mhm. ñu wax fa dara ma génne ko. Ah, man góor laa dafa naa ko ma wax la rek. Mhm. ay loi mhm. dafa am ñu ko féete. d'accord dafa am ñoo xam ne ñi loolu mooy seen liggéey. droit. d'accord fu yoon nu ñu koy doxalee. d'accord nu ñu koy tegee. nu ñuy daanee nit. d'accord loolu président de la république. première institution toog ñu koy yor. ñuy yor ndombo tànk yooyu ak cër boobu ak xalaatkat yi ak gëstukat yi d'accord comprendre que ñoo xam ne ñi maîtriser nañ loi mhm. ñu ñooy gëstu seet parce que dara parfait wut tout à fait lu nekk rek mhm. mën nañ ko def ren mhm. deux ans trois ans quatre ans ñu ne ah lii kat am na lu si doon kii ñu change voilà voilà monsieur Touré monsieur Gaye Babacar euh, monsieur le ministre euh, bi nga déggee lu jëm ci <laughs> yeesal boobu tukkee ci ñi gën a mag daanaka euh, ci réew mi ndax da ngeen jàpp ni lu war a mën a nekk la ni ko le ministre waxee ni yeesal mënul ñàkk wala da ngeen gis ni daal euh, dafa jaaduwul ñuy soppi jeu bi ci jamono bi nga xam ne ni mi ngi mi ngi en cours. nga Ngañ euh, bu ma la santee dama bëgg wax sama xarit Youssou rek ne comme fit la <laughs> daal moom fit mooy tey débat bi waroon na maa neex moom ma daja fekk keneen ko dul moom. Mm-hmm. loolu laa bëggoon mais moom moo ñëw ne na. ndax jàpp na ne sama xarit la mais du teree nag yusu fa ndox daan taa waxtu woo deme da fa fekk teppi tepp gis nga tolérance culture la maanaam dañ koy aadawoo ku mën a tolérer góor jigéen cim réew tolere lax de waxuma ne góor jigéen ak tii muy def duñ ko sanctionner mais tolere mu nekk góor jigéen ku mën a tolérer fees xeesal ba weex soli ay maanaam cheveux naturels modifier sa façon de fair dama ne jàpp ne war ngaa mën a tolérer ñeneen ñi nga xam ne li ñu gëm mooy. ni jabaru yonent yi meloon noonu la ñu bëgg a mel. foofu rek lay tëjee. wax jooju. Mhm. lu jëm ci maanaam CREI man duma daw waxtaan ndax man idée lay développé. ji nga loi yi nga xam ne moo yóbbu Karim Wade kaso moo yóbbu kaso ñeneen ñi nga xam ne dañu considéré ne ñun ak ñoom ñoo nekkoon mhm. te bu Karim nekkee un boo xam dañ ko jàpp ngir suma illicite parce que dañoo jàpp ne la mu yor mënu koo lay wala kuñ may waroo koo mën a lay ñañu may te mënuñu koo lay loi yi même yi yóbbu Karim kaso moo leen di yóbbu kaso te loolu yàggatul kon toog ba mu neex la nga seet ñi la neex ci askan wi nga ne ñii dama leen war a toroxal commencé par Abdoulaye mi ngeen wax ne da ngeen ko may cër ngeen jël doomam ne ko ràpp ci kaso bi ci base boo xam ne illégalité du début à la fin ba bërki démb ñi nga xam ne tey ñooy groupe de travail des Nations Unies nañu c'est une détention qui est arbitraire waxoon nañ leen ca njëlbeen ne leen CREI yi baaxul waxoon nañ leen ci njëlbeen ne leen CREI yi est anticonstitutionnel waxoon nañ yi dafay utiliser ay méthodes yoo xam ne bokkul ak respect des droits de l'homme du respecter les droits de la défense waaye ngeen ne non non moom la ñu def parce que booba li Macky Sall ak Mimi Touré surtout lui surtout moom Mimi dafa jàppoon ne jamono boobu pour mu jot primature mooy mu def lu kenn deful maanaam jalgati yoon troxal loi pour mu mun a tëj ay doomu aadama kaso mu toog ba mu neex ko moom président am ñu naan. loi bi nga xam ne ci lañ tëjee woon ñii léegi loi boobu kan gis nañ ne baaxul cour bi dafa am ay problème communauté internationale d'accorduñ ci organisation des droits de l'homme d'accorduñ ci dañ koy soppi buñ ko soppee ñu soppiwaat ko jigéen buñ ko soppee 2017 ñu daaneel leen soppi ko teg leen ci yoon. non kon ci defante ngeen jëm. déedéet. ah kay buñ ko soppee nga soppiwaat ko. pam ngañ dañoo jàpp ne kenn du changer les règles du jeu en cours de jeu. dañoo jàpp ne comme CREI yi dañ ne baax na ba dugal ci nit ay kaso waaye nañ ko bàyyi noonu bu ëllëgee ñoom ñi nga xam ne ñoo doon gérer dañ jàpp nañu dañoo jël alal réew mi ba tax ñu jël ñu utiliser ay loi ba dugal ñu kaso nañu bàyyi loi yooyu foofu bu ëllëgee les mêmes lois les mêmes règles ñu utiliser ko pour seet ndax ñoom jël nañ alal réew mi wala déet wala gënul juste. d'accord loolu moo gën a juste. d'accord waaye leneen lu ñu fi def xam nga lu ñu niru mooy ñun kat ndekete. yoon wi ñu jaaroon pour tëj ñi kaso teguwul ci yoon baaxul dañ koy raxas pour que ëllëg ñu foog na mën nañu effacer loolu kenn mënu ko effacer c'est dans l'histoire monsieur le ministre kenn mënu ko ni mu gisee mooy mooy daw daw daw daw jeu bi maanaam daw ëllëg lu mën a xew te lu mën a xew itam nee nañ ñoom dinañ ko delloosiwaat euh, ndax kon day day am dëgg ci dafa am lu mu nuru moo tax ñu bëgg a soppi lenn ci wàllu CREI lu ñuy ragal. waaw maa maa ngi lay gërëm mais dama bëggoon. pour ñu ñuy déglu ñu rek ñu xam ne maag sama patron bi sëñ baabakar Gaye du ma sa patron. waaw may ma rek may ma man yow tàggoo nañu yóbbul man du la man ba ma la booleeg ñi la waroon jàppale jamono boobee ci laay pare. donc bu wax sama patron man du ma sa patron sa xarit laa nag. Ah, d'accord voilà. damay fàttali sama xarit Babacar Gaye que bii mooy suñ ñetteelu débat. Mhm. mu dugal si bopp nit ñi. que ñu ngi doog a toog di débat xam nga ñoom euh, amoon na expression bu ma utiliser am kenn ku ko mbubboo si PDS di jigéen moo tax expression boobu ma jël ko teg ko de côté parce que njiitu réew mi président Macky Sall. Mhm. mu ñuy bañ a tuddee sax président Macky Sall si turam la ñu jaar pour wone ne ils n'ont aucune culture républicaine encore moins démocratique mhm. comprendre amuñu benn culture. Euh, donc bu ñu toogee tey jii di waxtaan pour lu jëm si askan bi pour lu defar gis nga fu mu jëm jëli na Aminata Touré jëli na ñeneen di wax këré yi fan la mujjee lan moo doon objectif am maanaam Karim mais il sera très déçu xam nga lu tax euh, gis nga ñuul nee naa la dañ ñoo yar te dañ ñoo yar si ngoor ak si diine toog naa fii ne ñun de lu dal Karim Wade yéene wuñ ko ko. mënta fexe nag. comme mooy comme mooy seen arme xam nga nga baal ma. Euh, Pam <laughs> wutkatu xaalis yëpp tey jii wutkatu xaalis yëpp ñu ngi former ay groupuscule mouvement libéré diw mouvement nangam nangam as kaaw as leneen borom deq yi. Mhm. lu may tuddee mercenaire. des mercenaires du ventre. fan la ñuy wutee xaalis ñoo fu ñuy wutee xaalis. mooy si kii mu tudd. parce que kii mu tuddu warutoon a ñëw sax si débat. mooy ki nekk ci kaso bi ah. waaw mais par may ma. mooy ki nekk ci kaso bi waaw da may déglu. Ah, laaj nga ma danga nga may déglu. d'accord baal nee naa la. Mhm. ñun dañoo juddoo fu ñu war a juddoo ñu yar ñu fu ñu war a euh, fu ñu war a yar. Mhm. man nit du nekk si kaso. Mhm. may teg si kowam loo xam ne li. waruma ko see teg. d'accord comprendre mhm. ça c'est une position individuelle. Mhm. mais dama ne benn combat lañ am ñoom. mooy combat boobu nee na CREI yi looy ragal naan ñu fi ñëw danañ leen si dugal ñu ñuy dugal CREI yi ñu ñuy ñëw dana daan sa dana daan dana leen daan ñoom dama leen a bëgg a xamal ne bu fekkoon ni ñun dañoo am lu ñuy tiit wala lu ñuy raf duñ jël réew mi. kon duñ fa toog ba tey. yàgg ngeen menacé. yàgg ngeen taxaw si kanamu askan bi naan buñ ko defee lii ñu def lii bu taxawee ñu def lii te ngeen dem ngeen di ay kilifa ngeen jàng taxaw tey jii wóoluwu leen si àdduna lu dul benn nit pour mu may leen mbooloo bu ñu paree ñu def ay groupuscule am kuñ seeti dem fayeku ji ñun xam nañ lu xew si réew mi CREI yi balaa ngaa wax waxi CREI yi mhm. sëriñ sëriñ Babacar Gaye sama xarit bu mag ñetteelu yoon ñu ngi débat. mosuma la wax lu la naqadi. balaa ngaa wax affaire cré cré yi munoo ko da ngay aussi du ma la wax lu la naqadi. munoo ko ñemewoo ko munoo ko ñemewoo ko. d' accord d' accord monsieur. Balla ko man nag ñemewoo ko bañ. ñu ne ma ñemewoo ko laay bañ. ñu ne ma ñemewoo ko def ko. dégg nga non non non. bilaay ba munuloo ko ñemewoo ko. non monsieur le non baal ma monsieur sa jikko rek ngay génne. d' accord déedéet non sa jikko rek. monsieur le ministre noo màggee rek. munuloo ko ma ne sa jikko rek. sa jikko rek ngay génne. c' est à dire que. waaw monsieur le ministre ay violence maanaam ay violence extra. d' accord ma nee CREI yi. Mhm. yow yaa ko war a wax mu sàmmi kàddo. parce que dañ fi nekk ngir. non dina ko def dina ko def. te moom sax wax dëgg yàlla sax waay la d' accord nee naa la troisième débat ngi nii. d' accord dama ne. Mhm. lu raw CREI yi moo fi nekk. Mhm. lu raw CREI yi xam nga mooy lan mooy OFNAC. d' accord comprendre da nga déposer par force sa déclaration patrimoine. d' accord danañ enquête. te danañ ko vérifier. d' accord te da nga wax après foo ko jëlee. d'accord loolu yaakaar naa ne lu leer la. donc président Macky Sall ñëwul am ñu ber naan yii tërë yi ñeneen ak ñu fi nekk tey. ñu fi nekk tey. Uh-huh. bu àpp ba jotee danañ leen gëstu. d'accord dégg nga ñoo xam ne ñi ay rek lañ bëgg toog nañ fii di jeebaane naan Youssou rek jënd na këru 200 millions. Youssou jënd na këru 100 millions. dafa matul 100 millions mais jënd na ko mais matul 100 millions. waaw defal naa ko ma wax la da la ñaata la. waaw da ngaa bëgg ma wax la. waaw dama bëgg 65 millions la. nga jënd kër te mu ngi si notaire waaw. te si bor la. mu nga banque de l'habitat du Sénégal donc may ma rek ñun duñ ay wurukat. d'accord duñ ay sàcc. Mhm. duñ dund si kaw askan bi d'accord yoruñu fi ay kër yu dul jeex. Mhm. kër ay kër Dakar ay kër sali ay kër Sendou ñun yoruñu ko. d'accord képp lépp loo xam ne ñu ngi ko yor rek. si lu lew la maintenant. Mhm. fu may terminer waaw nga daaneel foofu si vous plaît. fu may terminer waaw damay ñaanaan. Mhm. sama xarit Babacar Gueye wax na ko sama xarit la. waaw na. ànd ak tey d'accord c'est bon. comme ça waxtaan bi. d'accord mu a neex. d'accord parce que Youssou Touré kenn du ko menacé. d'accord bu ngeen nekkee ci pouvoir bi. non may ma rek ma non day def ay menaces la woyooyu kii bu ngeen nekkee ci pouvoir bi lañ leen doon ñun ñoo doon ñëw di leen buntu xataal lu ñu wax leen ko ci teggin nag. du ñu saaga. d'accord voilà merci beaucoup ñun suñu doom. waaw xam nga ñun suñu doom duñu seetaan télé ñuy saaga wala ñuy xas ni. d'accord voilà monsieur le ministre euh, question CREI bi euh, dañ koy dañ koy daal di évacuer yaakaar naa ni jeex na il faut ñu ñu tàbbi ci beneen euh, mu aju ci mbiru assemblée nationale. assemblée nationale dafa am lu lu fa xew loo xam ni ni ngeen ko gisee. ñu bëri daanaka rafetlu wuñu ko euh, ci loo xam ni xew na fa ci xeexoo ci fitna ci leneen loo xam ni am na fa euh, ci jàmmarloo yoo xam ni metti na lool ci xar kanamu Sénégal ci wàllu démocratie loolu nga xam ni nag xew na foofu euh, ci assemblée nationale monsieur Touré Youssou bi ba baal ma monsieur <laughs> su ko defee non non non non je vous Touré li loolu nga xam ni xew na foofu ci assemblée nationale nga xam ni ñu bëri am nañ ci mbetteel parce que yaakaaroon nañu ne ak seen régime xëy na bu loolu euh, bu ngeen ñëwee rupture dinañ ko am gis itam li nga xam ne moo fa xewoon ba président Macky Sall génn fa euh, mu waroon nekk lu sacré assemblée nationale pour yéen ñu gis li fa xew waroo ak liñ doon xaar ndax mën nga ñu ci indil ay leeral ci loolu. waa jërëjëf euh, <clears throat> Pape Ngagne d'abord. Mhm. du ñuy naqarlu. Mhm. lu xew assemblée nationale. Mhm. bëpp député ak foo munti far loo def lu dul yoon rek jaaduwut du dëgg assemblée national bu Sénégal xam nañ démbam xam teyam assemblée boobu ñoom ñu formé woon assemblée nationale boobu foofu lañ fa pesee nit ku ko peski parce que nee naa la ñun dañ ñoo yar ku ko peski du tudd turam dóor nañ fa El Hadj Diouf dégg nga lu nekk xew na fa c'est que suñu yar ak lu ñu gëm mayuñu baayu jàmbur wala yaayu jàmbur ñu toog ci tele àdduna bi yépp di ñu déglu ñuy wax seen tur ak lu ñu def donc bu assemblée amee lii dañ koy ñaawlu dañ koy naqaru mais nag Pape Ngagne moom sax moo ma ko gën a xam sëñ Babacar Gueye. xam moo la gën a xam lépp. moo euh, ah waaw ñoom nee nañ. ah d'accord allez waa continuez baal ma rek waaw baal ma continuez s'il vous plaît. Euh, donc lu xew assemblée nationale dama ne dañ koy ñaawlu mais boo ko seetloo ñu taxaw kan moo fa indi ay si biir assemblée nationale kan moo ko indi laaj naa la interprétation texte est-ce que jar na nga fekk nga yore ay ponkalum jëmm ay magum jëmm yore njeboot yore ay doom ñu leen di seetaan ñu fab ay sifflet biir assemblée nationale xam naa ne ñun ñoo fa dugal ay sifflet xam naa ñun ñoo fa dugal ay sifflet. biir assemblée nationale. mu ngi yàqoo si PDS. du dëgg si ñoom la yàqoo. bu ñuy woote mais fan la 23 juin jóge du si ticket vice euh, xeex nañ ko ba pare. d'accord te déggu ñu wax lu ñaaw dégguñu président Macky Sall képp kuy def lu ñaaw ñaawteef képp kuy wax lu bon képp kuy def lu bon bu soobee yàlla doo ko si fekk. donc lu waroon tey jii. Mhm. lu waral tey jii wax ji. du Sénégal a tax ñuy wax ma ne Pape Ngagne ñaata doomi jàmbur. Mhm. ñoo nekk ci kaso bi. ah Pape Ngagne ñaata doomu kon li xew foofu assemblée nationale aussi affaire dama ne dama ne may ma rek ñaata doomu jàmbur ñaata kilifa. lañ rey si bato la joolaa si négligence. d'accord ah lu ëpp ñaari junne nit. mos am si àdduna bi. Mhm. comprendre nga pourquoi duñ koy fàttali askan bi crime yooyu. crime yu rëy yooyu. te bato boo xam ne bi c'est parce que tout simplement. politique bi lañ yàq dañ koo politiser dugal si lu ñu wartu dugal ñëpp de des milliers plus de 2000 d'accord donc mhm. dama la ne mhm. assemblée de rupture mhm. ñun ñu ngi wone yoon bi du ma dugg dans les détails parce que xeju fi. Mhm. mais dama la bëgg wax ne. bu fa xeex amee. bu fa xuloo amee. mais dinañ ci dugg sax ci détails yi s'il vous plaît dinañ ci dugg alors monsieur le ministre nga baal ma xaw nga respecté un peu ci question bi ni mu demee mais format la rek bu ma bu ma abordé nii pour bëgg moom mu mu ñëw après yow aussi nga mën ma indil ay leeral euh, ci wàll boobu. alors li xew assemblée nationale du kenn nit rek du ñoom ñaar la parce que bu xeexoo amee am na ku dóor am na ku fayu am na ku saaga am na ku fayu euh, loolu nga xam ni am na fa. am na lu mu ci wax nee na du fa gulet donte am na fa bi mu fa amee ndax jàpp nga ni am na ci responsabilité bu ngeen mën a teg loxo. waaw Pape euh, nga may ma rek ma. Mhm. leeral askan wi. Mhm. pour que bu ma paree débat. Mhm. il faut que Youssou Touré wax lu tax mu naan man xaritam la c'est important parce que dina tax ñu ràññee démb pour mën a comprendre tey. ndax ëllëg ñu waajal ko c'est très important. man Euh, li tax ma ñëwoon fii je pense que c'était pour que askan wi am lu ko leer ci réew mi. Mhm. li fi ale ñu faram fàccee ko. très mais du ay wax di yéegal dënn du wax kenn du jëlee ci li ngay wax dara. Mhm. c'est dommage euh, foog naa ne tey émission bi waroon na bokk ci émission yi gën a yokkal askan wi leeral ci lu jëm ci problème yi fi nekk. Mhm. dépassé nañ ñaari. tem ñu ngi dugg ci troisième bi bii dama bëggoon rek ma am temps comme ni mu ko amee sans verser dans l'excès wax mbir yi li xew waaye mbir balaa nga wax li xew il faut nga wax li ko indi mm-hmm. ensuite nga joxe jàngat pour ëllëg mm-hmm. lu mel noonu bañ amati mm-hmm. benn mooy assemblée nationale crise yi am sa am Sénégal yi ci gën a ëpp importance assemblée la jóge dégg naa Alioune Tine wax ko. waaw. Mhm. dafa am bu mu tëb. Mhm. wax na ñaar wax na 62 wax na événement 23 juin. Mhm. événement 23 juin tiga tojul. c' vrai que manifester nañ buntu assemblée am na échauffourée am na ay jël xeer sànni ci ñoo xam ne kenn xaaru ko ci ñoom muy actuel président assemblée nationale Moustapha Niasse. man dinaa tudd dur parce que ku lakk mburu tudd dëkk bu fekkee da nga bëgg mais dafa am événement bu gën a important mooy assassinat Demba Diop ci la bokk député la woon crise politique moo indi assassinat boobu te ci biir benn parti boobu benn parti unique moo am ci la crise ba am moo jur 62 moo jur assassinat Demba Diop kon bu assemblée tollee fii ba ñuy tojantey bopp wolof la Sénégal dafa war a taxaw nag. loolu dafa am sax tojante bopp yi. waaw noonu laa ko mën mu nekk réalité. non am na assemblée nationale loolu. PAM ngañ tojante bopp. waaw dans le sens propre. Mhm. mooy bopp bu toj di nàcc. Mhm. tojantey bopp dans le sens figuré mooy xeex. Mhm. moo tax ma ne. d'accord ci niñ koy mën a misaale. d'accord bañ fay tudd ay tojantey bopp. war na nekk taxaw seetlu ki yor réew mi. clé de voûte des institutions le président de la République. Mhm. c'est le premier responsable. même bu fekkee li ñuy wax français responsabilité d'emprunt la maanaam du moom moo def directement. Mhm. ci li ñu foog waaye bu amee rek moom mooy responsable ba. Mhm. réew mi lu fi xew xam nga ñu ngi naan Bato Diallo Abdoulaye da doon dawal la Joola mais moo doon président la République. défaillance dans la gestion ci bateau la Joola moo indi responsabilité Abdoulaye Wade tout à fait assemblée nationale bi défaillance bi mu am dans son fonctionnement moo indi responsabilité Macky Sall en tant que président de la république danaa leeral loolu moo tax ma ne la fa xew bu fekkee xew na ñun ñu xam ne loxo ma ngi ci biir parce que ministre de l'intérieur moo ne moom mooy recevoir ay député di leen convaincre pour ñu bën a ànd ak liste légitime PDS moo ko wax ñëpp di ko dégg parce qu'il a reçu tous les députés il a le droit suba suba bu ko neexee na ma porte dama ne dama ne dama ne damay assumer li ma wax parce que li ma wax dama ko dégg dama ko liir te kenn démentiru ko d'accord dama ne doo dégg <laughs> ah, ministre bi moo boo ko defee nii aussi dafay daal di ministre bi moo ne le ministre de l'intérieur il mm-hmm. reçoit les députés mm-hmm. et bu ko sañoon il a droit de le faire d'ailleurs tout ce qu'il peut pour que PDS perdre en tant que son opposition il le fera moo ko wax na ma woo suba man xam fu ñu wutee su mag yow man du ma engagé combat bu may arrêté mooy benn ñaareel ba wax nga fi ay waaw non je vous en prie monsieur Touré ma su ko defee. non non s'il te plaît. oui man du wax ma dog ko. waaw d'accord na ma may rek. je présente mes excuses. ok merci ma développé vraiment li des ci temps bi bariwul nañ ko continuer rek. waaw kon nag nga bàyyi ma développé rek man. wax nga fi woy fi ñu juddu nangam c'est pas important kenn ku ne xam na sa moroom kenn ku ne xam na ku ne li nga doon mais man gëm naa ne réew mi je suis patriote ñaar je suis un républicain man bokkuma ci naan ñu naan Macky Sall man ci dis le président la république moom xam na ne je suis républicain parce que nangul naa ko falam <laughs> li ma ko nangulul mooy li muy doxalee d'accord en tant qu'opposant dinaa ci dem ba mu jeex li assemblée gàcce la ci Sénégal gàcce la ci ki jiite Sénégal gàcce la ki jiite assemblée nationale balaa ñu yegg ci député yi seen i kilifa la ñuy njëkk wax. parce que nag li wax indi wax ci mooy lan mooy groupe parlementaire bi nga xam ne opposition moo ko mettre en place pouvoir u Macky Sall du fi amee dama ne bu kenn bàyyi maanaam li ñuy wax euh, las proie euh, euh, bi naan li nga xam ne mooy ombre bi nga koy jéema a dal. li xew épiphénomène la maanaam conséquence lu li ngeen def la lan ngeen def dangeen fekk droit ay député ngeen jalgati ko yoon dafa wax ne député yi am nañu sañ-sañ organiser seen groupe parlementaire ca njëlbeen 2002 li may wax li tax ma xam ko mooy loi bi nga xam ne moom ngeen modifié le 18 août 2015 maa ko tabax en tant que président du groupe parlementaire en kon interprétation bi nekk ci texte bi kenn ci Sénégal mënuma ko gën a xam la ca nekkoon insuffisance yi ngeen ci dugal yi ngeen ci yokk mooy benn booy defar sa liste pour defar député <laughs> war nga déposer ci présidence ba première session yéen a ko changé modification yéen a ko def le 18 lu tax ngeen def ci ne première session ordinaire ngeen ne on doit déposer à la présidence article 20 ci biir article vingt ngeen insérer benn alinéa foofu ngeen daanoo alinéa bu bees bu ngeen dugal moo leen tënk parce que da ci dugal ne pour yeneen session yi maanaam pour deux mille treize deux mille quatorze deux mille quinze deux mille seize at mu jot groupe parlementaire bi nañ ko defee woon ci première session bi noonu lañ koy defee parce que dañ jàpp ne président assemblée nationale amagul mhm. mais li tax ngeen jàpp fa ndu ci article ni modification ne bu ñuy modifier dëgg la président groupe parlementaire bi modification yi daf ko war a déposé déposer auprès du président de l'Assemblée nationale ça veut dire que mooy lan su ngeen defee ci benn texte même article alinéa 1 ngeen ne la présidence mooy bureau ya secrétariat général l'administration parce que y a pas président su ngeen demee ba ne at yi ci tap au président il faut que président am or en 2015 bi ñuy ubbi session bi ban président groupe parlementaire moo mën a def modification bay déposer auprès du président alors qu'il n'y a de président loolu moo wane ne modification article 22 mu ngi concerner les groupe parlementaires yi nga xam ne constitué leen ba pare bu ñu demee ba koy modifier en cours de session kuy modifier da nga koy yóbbu ci président ba publier ci journal officiel loolu la loi wax. ngeen jël loolu teg ci suuf parce que bugg leen opposition am parlementaire parce que Modou Diagne Fada mooy seen allié moom ngeen yebal ci biir PDS pour mu tas parti démocrate sénégalais toroxal président lay Wade dama ne tous les démocrates ak ñi nga xam ne dañ bugg une assemblée de rupture comme ni ngeen ñu ko diggee woon du ñu nangu loolu tey du ñu ko nangu ëllëg gis nga li xew assemblée nationale d'abord du guléet maa ngi lay fàttali jamono Ousmane Ngom. ak jo mbay na ko yàlla yërëm ñaareel ba du guléet ci monde bi France Japon Turquie Venezuela amul benn réew ci àddina bi Russie Ukraine ay député bu ñu amee leen naqari dañ koy manifester bu fekkee ne dañ leen di bëgg a jalgati jaay leen doole. loolu ça ne veut pas dire que je fais l'apologie de la violence. man ànduma ak ñuy xeex assemblée. man am na yeneen argument yu dul violence. am naa ay samay idée am naa samay argument mun naa ko développer mais gëm naa ne bu ma nekkoon biir assemblée nationale en tant que man député Babacar Gueye comme bi ma ko nekkee 2002 comme bi ma ko nekkee en 2007. lu raw lii lu ñu def naa def loolu. xam nga lu tax. di nga ku dem ba yoon bunti yoon yëpp ñu tëj ko ku ñàkk pexe mooy toog bay utiliser la violence. or siffler mooy violence wax mooy violence. la violence mooy l'agression bi nga xam ne député benn Bokk Yaakaar yi ñoo ko yëkkati jëmale ko ci député PDS yi. d'accord te les vidéos sont là. d'accord pour confirmer cela bi ci des foofu lay jeexalee ci dossier boobu. Mhm. très honnêtement dama am déception ci sama xarit Macky Sall parce que nag en tant que président la République dama ko respecté mais dafa am fu ñu jaar ma ak moom relation am nañu ko du de vue humain mais foog naa ne li xew assemblée. bu ko seetaanee en tant que clé de voûte des institutions c'est parce que daf ci am intérêt te du njëriñam muy toog bañ naan tey député assemblée nationale ñi nekk opposition am groupe parlementaire te yemu fi ça ne fait que commencer la conséquence mën na gën a garaaw loolu te dafay dafay yàq démocratie Sénégal dafa ñuy toroxal daf ñuy delloo gannaaw. te moom dafa waxoon ne bu ñu ko falee. Mhm. démocratie discours am yaa ngi koy dégg léegi bi ñuy commencer ci générique bi. Mhm. dafa bëgg réew démocratie. li ko dal assemblée waroon na tax moom. benn député y compris député bi gën a simple wala président groupe parlementaire duñ koy buntu xatal parce que moom buntu xatal moo ko yóbbu fi mu yóbbu d'accord comme fi mu toog place mën loolu loolu aveu aveu bu am solo sax moom nga def ci laay defee transition parce que boo ne la mu fa daj ak buntu xatal bu ñu ko buntu xatal te kenn def ko lu dul yéen laakaar naa loolu aveu assumé d'accord alors léegi monsieur le ministre euh, dégg nga li nga xam ni wax na ko ñu teg ko ci loi yi nag wax dëgg yàlla ak ni mu ko waxee ci article yi ak jalgati yu mu jàpp ni am na ko ci ndax groupe parlementaire bu taxawul euh, mënuñu tànn président président bi moo war a tànn lii di groupe parlementaire am teg ko ci loxo président su assemblée nationale yooyu yëpp la jàpp ni jalgati am na ko ci ci article ba ci 22 ndax loolu itam mën nga ma ci leeral jërëjëf xam nga sama xarit Babacar Gaye def na littérature am ba pare. Mhm. comprendre xam nga dafa am lu ñuy wax littérature waaye gis naa say kayit bu yàgg man yoruma benn kayit gis naa say kayit bu yàgg parce que institution bu nekk dafa am nu muy doxee. Mhm. dafa am nu mu tëddee. gis nga yii ngay wax nii article tel loi tel extra extra <laughs> may ma wax la nañ dégluwante rek. <laughs> lay nga lii ngay wax nii pour lëndëmal askan bi si si si <laughs> pour lëndëmal askan bi la parce que bu ñëwee newoon naa ko suñ benn débat. benn tele ma ne ko yow booy wax il faut nga yore békk yi il faut am si loo sukkandiku pour nga def débat loolu la fi def préparé ko indi ay article extra extra xam nga nit da ngay nangoo wàccee sa bopp da ngay nangu suufeel sa bopp lii loi la gis nga président Moustapha Niass moo la mën fuuf si wàllu droit moo la mën fuuf si wàllu doxani lu réew mais mu ngi ne patt pataaral jàpp njàmburam parce que noonu la ñuy xàmmee un grand homme Macky du ko gën a gore. du dëgg. nee na ko gën a gore. waaw maa ne. d' accord. ne Moustapha bu mu nekkee si réew mi ba tey jii. bu fekkoon ala ko tax a jóg yaakaar naa ne am na ko yàgg na. en tout en tout cas en tout cas jooy na assemblée nationale. ma ne euh, ma jooy na fa de yaa ngi koy fàttali. kon yow dooy dem fenn jooy. Ah, moom de. dooy dem fenn jooy xam naa. jooy na xam nga jooy ku koy def. Mhm. ku du tuur deret. Mhm. ku bëggut a gis deret ku bëggut a gis nàcc-nàcc ñooñu duñ jooy mukk mhm. parce que seen xol yi dafa dëgër mhm. comprendre mhm. ñun soxla wu ñu kayit yi soxla wu ñu article yi xam nga lu ñu soxla ah, déet waaye bu wax loolu ah, eh, ay ay soxla wu ñu article yi itam euh, Pape Ngaye ma euh, allez-y waa ma baal ma baal ma baal ma ma Youssou non non non non je vous en prie baal ma allez-y ah, waaw waaw waaw wax nga dëgg de ak galal baal la ne kayit yi waaw ak solo bu mu mën ci am yaakaar naa ne Pape Ngagne émission wolof. moom la Sénégal yi gën a gën a déglu. donc da ngay wax loo xam ne li. mën nga ko teg si loxo Sénégal yi. du jël ay kayit. d'accord comprendre mhm. donc si loolu. Mhm. président assemblée nationale Moustapha Niasse. Mhm. yàllaa ko yaral boppam. d'accord président Macky Sall yàllaa ko yàlla moo ko yàlla boppam gis nga seen parti boobu. gis nga seen parti boobu am na ñu fa yaru ñu yàlla yar. xam nga ñun nekku ñu fi. pour taal réew mi nekkuñu fi pour bundu xataal nit ñi duñ xaste duñu saaga buñ ko bëggoon sax président Macky Sall moo ñu ko tere xam nga lu ñu war a def sañ Babacar Gueye nee naa la si suñ benn débat depuis Walfadjri ma ne pouvoir gënul opposition gënul kujje maanaam nguur gi gënul kujje gi mhm. ku si nekk rek nanga def loo war a def si teey d'accord si kaddu gu rafet. d'accord si kaddu gu yiw. Mhm. parce que ay kilifa ñu ngi ñuy seetaan. ay xale yu ndaw ñu ngi seetaan. donc tooguñu fii tey jii pour di xasante man tey jii boo ma nee euh, euh, articles yi ak loi yi xëy na sax bu ma ko préparer woon du ko xam parce que sa domaine la comprendre nga bu ko indi nag def ko kirluwaay di ko bëgg muur askan bi di bëgg a sëlëm askan bi parce que article yi ngay wax. Euh, benn existé wu si. Modou Diagne Fada bi mu ne nag seen allié la Modou Diagne Fada. bi mu ne seen euh, allié la a ko dugal ci biir PDS loolu moom du ay article. Euh, ma ne waaw ma mhm. xam nga pexe bu nekk. Mhm. def nañ ko pour mën a déstabiliser président Macky Sall pour mën a déstabiliser réew mi. Mhm. yaa ngi fàttaliku. bu ñuy wax ñoom bu ñu taxawee naan bu ñu ko defee lii. ñu def lii ñu dugg palais buñ defee lii ñu def lee yaa ngi koy fàttaliku. comprendre wax joojoo gënoon a ñaaw te wax jooju tax na Sénégal yi génn si ñoom parce que doole ñoom jaay doole. lu fi benn wëykat boo jaay doole seen fukki at ak ñaar avant ñuy ñëw pouvoir lañ commencé di jaay doole nit ñi di rey nit ñi di leen massacrer di da euh, di bënn seen bët di dóori marto loolu c'est l'histoire ñun yàlla nañu yàlla musal si violence. ak nag sëñ Babacar violence bu mu munti doon muy violence verbale muy violence physique. d'accord psychique intellectuelle. ñun de. moo Modou Diagne Fada yaru nañu yar boo xam ne bi <laughs> comprendre nga. Mhm. duñ egg foofu Modou Diagne Fada bu muy wax. Mhm. Modou lu mu am bu taxawoon fii tey jii woote ñii taxaw woote mu ëpp leen nit. Ah dañ koo gis dafa nànk rek dañ koo gis <laughs> ñun du Diagne Fada bu ñëwoon honorable du Diagne Fada bu ñëwoon. li mu wax loolu nga ciy tontu quoi. ci li mu wax dama ne dama ne xam nga ñoom. Hmm. moom laa lay wax sànq rek. waaw c'est dafa doon sama xarit ba nga xam ne bugguma sax di ko yëngal. waaw man mënuma yëngal. comprendre nga. Hmm. c'est-à-dire que dañoo foog ne Sénégalais yi. Hmm. dañ dut fàttaliku. d'accord comprendre nga. Euh, ñoom buñ fi nekkee bi ñaata nit. lañu ñu jënd. ah d'accord ñoom kon moo tax ngeen di leen topp. ma ne. am na benn jiitu réew sa Seck pour ne pas le nommer. waaw fu mu nekkoon bu mu fa jógee bi buñ ko yóbboo prison bu boo euh, avant muy dem prison lu seen njiit waxoon. Mhm. dama koo jox dépense ñaari junne. d'accord mu war ma delloo junne. Mhm. donc gis nga ñoom. Mhm. Euh, ngeen baal ma bëgguma wax ju dëgër. d'accord mais lu ñu xam yépp seen xam-xam yépp. mooy yàq. d' accord xaste. d' accord merci saaga. d' accord Modou Diagne Fada nit ku yiw la. ñun bokku ñoo ak moom parti. Mhm. bu toogee tey jii naan ñun ñoo ko wow wala daf ñuy jàppale. d' mu ngi bàkkaar te yaakaar naa ni jullit la. Mhm. donc nit ki. Mhm. lu mu métti métti métti métti. bu ngeen nekkee suñu kaw. di ñu bundu xataal di ma dàq di ñu saaga. dañ koo muñ delloowuñ saaga yi xasuñ leen. d'accord parce que bu ñu leen xasee rek yéen ku jegi bu ñu leen xasee rek askan bi lañ xas. d'accord bu ñu leen saaga askan bi lañ saaga donc foofu rek laay terminer nañu fexe bañ yar jikko yi. d'accord gis nga nguur gi nu ngeen ko bëggee ñun bëggee wuñ ko noonu. d'accord ñun dañoo dund avant nguur gi dañoo dund avant ñuy ñëw pouvoir dafa am fu ñu jaar. suñuy papa Youssou Touré du dara mais papaam cheminot la woon ñëpp may dégg def lycée Charles juróom-ñaari at. am fa bac def formation bu nekk donc ay jaayante xam-xam ay jaayante grade daf ko jaru d'accord nañu fexe. d'accord ñu respecté monsieur le ministre baal ma nga nga daaneel foofu rek s'il vous plaît. merci <laughs> jërëjëf. alors waaw monsieur le ministre Babacar Gaye il faut ñu aborder question bu mujj bi euh, da non avant dernier bi sax muy aju ci mbiru euh, président Lamine Diack. président Lamine Diack ak inculpation bi nga xam ni def nañ ko ko euh, ci euh, wàllu tuuma yoo xam tuumal nañ ko ko ci wàllu euh, guerre ci dopage ak yooyu dañ ci dégg taxawaay boo xam ni état du Sénégal taxaw na ko ci via jëwriñ ji nga xam ni moom la ñu dénk wàllu tàggat yaram dégg nañ ko itam ku mel ni Mankeur Ndiaye jëwriñ ju ñu dénk wàllu jëflante ak bitim réew dëggal ko ni daal ñi ngi ci ginnaawam di ko jàppale bi nga déggee kàddu yooyu ci mbir moo xam ni dafa nekk ci wàllu yoon itam ak yooyu jàpp nga ni daal logique la mérité na ko en tant que patriote moom mm, président la Lamine Diack ak nan nga déggee assistance su Sénégal ci loolu. question difficile ndax man ku ma xam-xam ne éthique éthique moo nekk suba soubassement lépp lu may def. Mhm. y compris sama action politique. je suis très peiné maanaam am naa trop métit ak tonton Lamine di am une situation aussi compliquée ndax bu dul dara njabootam. yàlla def na ma seq ak ñoom histoire. histoire mooy bokk liggéey boole ceeg ay doomam yàlla def na aussi ma am ak ñoom relation boo xam ne euh, bu poussé. en de relation humaines le gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement Sénégal cëram mooy indi jàppale taxawu bépp doomu sénégalais nag laa wax bu ko kenn teg ci daraja bu ko kenn teg ci juddu bu ko kenn teg ci am-am bu ko kenn teg ci tur mhm. nañ ko teg ci citoyen sénégalais bu nekk ci jafe-jafe nguur gi war na am taxawaayu taxawaayu ndey ak baay mais nguur gi nga xam ne mooy nguuru président Macky Sall dañoo woote ñoom ñoo ko wax une gestion vertueuse et sobre ak une gouvernance bon transparente war nañu nekk mal bu fekkee ne dafa am benn sénégalais citoyen sénégalais bu am jafe-jafe boo xam ne dañ koy tudd ci di ko tuumaal ci ay lubal wala ci ay ger ndax ñoom ñoo ne dañoo bëgg a xeex ger moo tax ma jàpp ne foofu ñàkkul dinañ ci am gêne ñoom pour pourquoi dañu war a yemale sénégalais yi boo xam ne sénégalais bu nekk biir Sénégal la ak sénégalais bu nekk extérieur u Sénégal mbir mi ay tuumaal la te enquête ñu ngi koy door ñu ngi bàyyi comme ni ñu respecté une justice indépendante waxuma justice boo xam ne dañ koy manipuler. Van Brubeck en France ñëpp xam nañ ne kuy woo président Sarkozy di ko dugal ci ay mise en examen ñàkkul ne kooku mun nañ am yaakaar ne liggéey mën na ko def ci ni mu gën a yiwee. wuute na ak ñi ma xam. moo tax comme ci tuumal lañ toll. Mhm. te comme commencé nañu enquête damay respecte li nga xam ne moom la yoon bëgg def waaye damay apporter man personnellement en tant que Babacar Gaye humainement. Mhm. sama solidarité ak ki nga xam ne mooy tonton Lamine Diack ndax. li nga xam ne seq nañu ko. kon jàpp nga ni daal di gënoon mooy ñoom ñu def ko personnellement ni nga ko defee. Euh, maanaam gouvernement bi nga wax. waaw gouvernement bu doon sama sago. Mhm. assistance gouvernement bi day nekk une assistance diplomatique maanaam muy assistance boo xam ne intervention comme ci suuf lañ koy def. Ah, loo xam ne. ok nekkul dañ koy siiwal. parce que li tax. Mhm. bu ëllëgee. Mhm. damay ragal beneen sénégalais bu mu nekk man ñaanu ma ko yàlla mais mënoon naa nekk man aw ma boobu tur aw ma boobu daraja. ma nekk ci ay tolof tolof yoo xam ne maa ko def parce que jubuma gouvernement Sénégal noppi boobu dafay am li ñuy wax déséquilibre. dans l' administration. des du service public. d' accord loolu moo tax ma yaakaar ne war nañoo am teey ñoom. surtout au niveau ministériel ak présidentiel. Mhm. ci loo xam ne dafa concerner un citoyen sénégalais te ñu bàyyi. Mhm. ñi nga xam ne c' est les services diplomatiques la ñu war a def comme consul ba ambassadeur ba intervention underground bu mën a nekk ñu def ko. moo ma gënaloon que ñoom ñu ci fës. parce que bu ëllëgee. résultat bi juddu. Mhm. yàlla naa ñaan mu nekk bu rafet bu baax pour. lamin Diack amiin mais bu fekkee saafaan ba la dañu am gàcce d'accord. dinañ am gàcce bu fekkee safaan ba mu am maanaam président euh, de présidence bu Sénégal dugg ci loo xam ni ëllëg la cay tukkee mën na ko jëral jural gàcce euh, jàppaloo ni kon lu ñu war a waaj la ba ñu la ñuy jël ay décision ci wàll boobu. monsieur le ministre newoon naa la. Mm-hmm. en matière de droit de l'homme on n'a pas de leçon à recevoir de ce qui était là il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. n'est-ce pas de 2000 ba 2000 euh, ba 2012. heureusement. lii li soutien la ñuy wax nag. voilà may ma rek may ma rek dama ne dama ne dama ne waaw. du ñoom <clears throat> waxtaan bi mën nañ ko péncoo mhm. mën nañ ko waxtaane mais du ñoom ñooy jox leçon de comportement walla leçon de morale président Macky Sall daf leen a raw te bët setagut raw leen si xam-xam raw leen si jikko raw leen si fit raw leen si mënin ñun nag Lamine Diack suñu compatriote la. lépp lu ñu mën. askan bi yépp nag parce que du waa APR du waa PDS rek du waa ñeneen ñun ñépp ñoo war a ànd. xamuñu ndax tooñ na walla tooñut mais terewut même bu tooñoon cër buñ ko war a jox ak buñ ko war a féete danañ ko fa féete même bu tooñee parce que nag yàlla rek moo du jiw. nit ku nekk day juum. même bu juumee da ngeen koy. même boo juumee danañ la jàppale si njuumte googu nu ñu lay jàppalee mooy yoon dana dal sa kaw mais du tere ñu féddale kóllëre ah, parce que nit ki bu fekkoon ku juum ñu tëj la kaso kon tey jii yaakaar naa ne débat yi ñu bari duñ fi toog. ah si mën naa fi ah, na wax man. parce que mën naa fi toog man. may ma rek may ma rek. dinaa fi toog man avant nga man tooguma pouvoir rek la. tooguma si pouvoir waaw kon débat bi am na ñu fi di toog. waaw ma ne ma kenn. waaw d' man de damaa bëri bor wax. dëgg yàlla non dama bëgg a xam loolu. waaw ma dama ne. même tey jii bu fekkee ni moom. lu luñ koy tuumaal. néew ma am na lu si nekk de lu ñuy ñaan yàlla si suñ xol lu ñuy ñaan yàlla mooy tuuma yooyu ñu teg si koom. mu am ay argument. d'accord ba nga xam ne du dal si koom mais dama ne. même bu fekkoon ne sax dal na si koom nu mu mënee dal si koom. Mhm. la mën a dal si kow kaw Youssou Touré. Mhm. ma sàmba kaw ma demba parce que nag ay nit rek lañ. d'accord ñu jàppee woon seen bopp. yonent foog ne yàllaa leen yónni yàlla won na leen ne benn nguur mooy am mooy nguur moo am mooy nguuram donc Lamine Diack si boppam ak i doomam. suñuy njaboot lañ. ñun ñoo bokk yépp te Lamine Diack moomu même bu fekkoon ne sax si lu mu def sax am na lu toll ni weer lu si setut maanaam service yu rendre yi. adduna bi Afrique ak Sénégal gi war na mën a tax ñu may ko cër. ñu rafet njort si moom. julli defal ko ay dog ñaanal ko parce que nag jullit àqan la. d'accord voilà ci question bu mujju régie bi wax nañ ma euh, émission bi daanaka euh, jeex na euh, bari na nag ci wàllu diplomatie ñu wax ci Sénégal parce que ñoom ak seen gouvernement ñu bàkkoo daal am na fu ñu yóbbu niveau diplomatie Sénégal foo xam ni mosu fa egg parce que lu mel ni conseil de sécurité bu Nations Unies taxawaay bi nga xam ni am nañ ko fa bu yàggul itam tey sax maa ngi dégg conseil exécutif bu UNESCO ci mandat boo xam quatre la loolu itam dégg naa ko tey tey ji euh, loolu mu nekk ay ay ay succès yu ñu jàpp ni ñoom daal ak yeneen ak yeneen euh, rafetal na diplomatie réew mi euh, ba ñoom war nañ ko mën a bàkkoo ndax jàpp nga monsieur Gaye ni loolu lu lu maanaam lu ñu war a kañ la. amul dara lu nit war a mën a kañoo ci état damay rek wax askan wi ñu delloo ci seen xel. déclaration Cheikh Tidiane Gadio farul ak ñun. Macky Sall président Macky Sall landal moom la woteel. waaye nee na maanaam ci wàllu diplomatie raw ci Ablaye Wade dina jafe. te it lam ca tabax bañ ñu yegg si fii tey bay mën a yeggee conseil de sécurité. Ablaye son combat nekkuloon nekk euh, membre du conseil de sécurité non permanent. Ablaye da doon xeex pour Afrique en place conseil de sécurité. mu nekk xëccoo entre Nigéria Afrique du Sud Algérie ak Sénégal. Euh, africains yi seen division. maa ngi déglu léegi Roland Dumont France euh, non euh, l'ancien premier ministre euh, l'ancien ministre des affaires étrangères socialiste mu naan ki accompagnoon Villepin bi muy def déclaration sur l'Irak mu naan bi ñu waroon dem conseil permanent Afrique war ko am yoon la l'Afrique tout le monde était d'accord sans voix mu desoon les voix africains seen division moo tax dugguñ conseil de sécurité en tant que membre permanent mais doo am droit de veto mm-hmm. ndamu Sénégal maanaam dugg conseil de sécurité comme membre non permanent du ndam dugguleen mm-hmm. régime yëpp yi fi nekk jaar nañ ci ñun waa parti démocratique sénégalais maanaam Ablaye Wade moo ayewul loolu. yéen amul chance. waaye liggéey ay nag tombé moo waral ay gaf. félicitation ah le ndokkale. Mhm. waaye liggéeyu diplomati diplomatie duñ ko def ci ñaari at duñ ko def ci ñetti at. loolu laa bëgg ñi xam lan mooy place su Sénégal ci diplomatie Senghor a ko tabax kenn ku nekk da nga ci bay sa waar. Mhm. kon bu ñu toogee tey bañ boolee ñu ci euh, kuréel googu. duñ def lu félicité ci ñi yore état bi en tant que état bi muy président Macky Sall di son ministre des waaye nag kenn du dundee diplomatie de en même temps Sénégal Fonds monétaire international classé na ko parmi les vingt cinq pays les plus pauvres du monde en même temps PNUD classé na ko parmi les vingt quatre pays les plus pauvres du monde en même temps la pauvreté fii ci Sénégal mu ngi ci quarante six virgule sept pour cent. En même temps, le chômage aujourd'hui concerne 60 pour cent des jeunes de ce pays. waaw ah, mais def na ay jéego itam ci ay. dama ne environnement des affaires ak doing business. dama ne euh, il faut que ñun li ñu intéressé. Mhm. mooy li tax ñu fal ko. d'accord Abdoulaye bu fekkoon ne doing business la du mës a daanu parce que rang bi mu yeggoon Sénégal daf ko ci wàcc. <laughs> bu fekkoon ne réaliser ay performance au plan économique la du daanu. bu fekkoon ne réaliser ay infrastructure la du daanu bu fekkoon ne def ay jéego ci dimbale askan wi ci ay euh, prendre en charge la les sociale sociales dont la santé du daanu. kon lu mu daanu mbaadu liñ ko doon jiiñ la non je pense ci wàllu doomam. je pense que euh, ku yor nguur pendant douze ans. Mhm. adversaire mooy usure du pouvoir. ah c'est premier adversaire. Mhm. d'accord deuxième adversaire mooy. Mhm. le besoin de changement. Mhm. troisième adversaire mooy li nga xam ne moom la ñëpp xam. toute la communauté internationale ñi nga xam ne tey ñoo acquis au Sénégal. féete woon nañ feneen. dama ne amul féete woon nañ. <laughs> dañu organiser wu pour faire partie Ablaye Wade. pour que delloo seen njaam ci buumu sénégalais yi. acquis l'économie boo ko seetloo le retour de Bolloré. Total qui prend 80 pour cent aujourd'hui de l'énergie au Sénégal nga seet Eiffage toutes les structures boo xoolee Turquie Sénégal dañu toog ba mel ni dañ ko jël delloo ko Orange loolu Ablaye Wade c'était son combat panafricaniste kon ñun bu ñu tubaab yi di xeex pour teg fii seen xarit dañuy taxaw en tant que qu'africain pour résister waaye nag mhm. dañu jàpp tey ñi àndoon ak président Macky Sall ba fal ko. ñoom ñoo ne dañoo rëccu. d'accord jërëjëf monsieur Gaye ci ci diplomatie laa ko laaj moom tarxis na ba ci wàllu pauvreté mais yow nga tontu rek ci diplomatie bi am na ci ay jéego yu ah, am solo euh, yoo xam ah. ni ñaare di ngeen koy di ngeen koy bàkkoo ah, donte nee na moom jarul tiitaroo. waaw ma ne. Mhm. man de yaakaar naa ne boo nekkee patriote. Mhm. nga nekk ci kujjee. gis réew mi def benn jéego da ko war a rafetlu. conseil exécutif UNESCO bi. da nga nee nag yëgagul quoi monsieur Gaye moom la def waaw da nga nee nag conseil conseil exécutif UNESCO. Sénégal mosu fa bañ a jógee lu ma lay weddi nga laa jël professeur Iba Der Thiam. d' accord kii jàngalekat la. d' accord allez-y waaw. xam nga <laughs> nee nañ Sénégal dafa jël vingt cinq in. vingt cinq pays les plus pauvres du monde. loolu du vingt cinq d' accord d' ne vingt cinq pays les plus pauvres. ma fàttali la sëñ Babacar Gaye mm. te président Macky ah. ñetti at la fi toogagum ëpp benn may ma rek may ma rek waaw dana ëpp si yàqkat ak séddookat ak ñuy pasar pasare alalu réew mi dana ya dana dana dana noonu rek la mën a demee ma xamal ne si record nee nga vingt cinquième pays parmi les vingt cinq pays les plus pauvres mm. comprendre te loolu dama ne ça reste à vérifier <laughs> mais dama ne dama ne yéen yéen vous avez battu le record de crime de sang pays <laughs> comprendre nga am na benn rek am na benn am na bugguma sax di deltu gannaaw Euh, bugguma di deltu gannaaw. ñu ngi wax ci diplomatie yaa ngi. yaa ngi non diplomatie bi moom moo indi. vingt-cinq wax waxu diplomatie sax. diplomatie mooy wax ak diplomatie yow. mooy mooy droit de l'homme dama ne. <laughs> dama ne en matière de massacre d'êtres humains ils ont battu le record de tout l'Afrique d'ailleurs euh, de toute l'Afrique te danañ si egg <laughs> donc xam nga luy problème bi vingt-cinquième pays ñun de amuñu fi fukki at ak ñaar ñun de yaruñu woon ay maletu xaalis ñun de. du ñun ñoo fi indi bateau annoncé annoncé yi fay koy milliards. Hmm. du ñun ñoo dem si Xadaafi de. Hmm. nga dëgg ak keneen ak keneen ak keneen. président Macky Sall dafa ànd ak tey di liggéey. kan moo demoon kan moo demoon kan moo demoon France euh, jaar Grèce après mujjee Amérique ci xaalisu tayoon bi Idriss sekk laaj na leen ko ba tey kan tontoogul. ma ne du ngeen tontu ci loolu ma ne. ma ne damay laaj rek. ma ma rek Idriss laaj na leen ne leen. ma yi tayoon yi. ma ne ngeen ko dugal. ma ne dugal ko tontu. xam nga. lu may bañ. parce que nee naa la PAM nga. da nga wax tudd fii ñoo bokk yar yee bokk bu fi commencé ba léegi dama la nee rek. Mhm. gis nga ancien président Ablaye Wade ñun dañ ko may cër. non da nga naan président Ablaye Wade. waaw non président boo bëggee. voilà c'est ça waaye président. dama ne. président ñun dañ koo may cër. comme à commencer par président. de la république. maa ngi xaar ba mu ngi koy woo téléphone di ko nuyu. non moo maa ngi xaar maa ngi xaar ba mu koy rendre hommage bi. fi libéraux yi monde ñëwee waroon na ko mën a rendre hommage. maa ngi xaar ba mu am jox ko cëru kilifa comme ni mu nekkee kilifa ak ñëpp. comme yow c'est un débat de politique politicienne. allez-y égalel s'il vous plaît rek waaw dama bëgg a wax ne Pape Ngagne foofu laay terminer. d'accord allez-y mhm. la wax. waaw waaw. Euh, nga Pape Ngagne. gis nga ma diplomatie mhm. ñun boo jëlee tey ñett rek ñu fi nekk mhm. nga lim leen rek muy président Macky Sall mhm. muy premier ministre bu nab laa joon dégg nga muy ministre de l'économie et des finances xam nga fu nekk muy ministre Mankeur Ndiaye des affaires étrangères lu ñu réaliser en moins de trois ans yaakaar naa ne sori ngeen. d' accord sori ngeen record boobu. donc noonu ba tey ñeent yooyu yëpp maa leen gën a xam ñii ñeent nga limal ma ñëpp maa leen gën a xam may ma une seconde may ma une seconde. Mhm. ma xam nga ñun lu ñuy ñaan sëñ Babacar Gaye comprendre nga ñun. wax ma léegi loo bëgg. waaw may ma lu ma bëgg voilà. rek moom laay ñëw. comme ça ñu def ko. ñu bàyyi. tiitalaate beeg xoqatal. d'accord loolu wax ko Macky. waaw may ma waaw may wax ko Macky. ma ne wax ko président Macky Sall tiitalaate beeg xoqatal. ma ma terminer c'est plus que lu ñu bëgg. am ngeen xam-xam dañoo ne ñun. senegal yëpp lañ soxla xamuñ dara. non rek. non non non xam nga da ngay indi. si beneen waaw waaw allez-y allez-y moo dog waaw moo la dog kay mais monsieur Gaye itam baal ma nga bàyyi ko mu eggale. <laughs> s'il vous plaît waaw baal ma rek <laughs> baal ma xaw ma. Ah, comprendre nga waaw d'accord xam nga ñun tey jii. Mhm. xam nga lan mooy suñu souhait ñun ñu nekkoon démb. Ah. ñu fexe ba ñu toogaat. ah d'accord uh-huh. ñun ñëpp danañu neex. ñun ñëpp danañu neex. nee nga bu ma nee ancien président Ablaye Wade président Ablaye Wade boo bëggee. boo bëggee sax mën na ko empereur. nga ni yéen ñëpp dina leen neex. ma ne que moom ak ñun ak moom président Macky ak ñun ñun ñëpp ñu juboo parce que yàlla. ah bon waaw xam nga lu tax ma wax la ko. parce que président Macky Sall. Mhm. du fii laa koy waxee. d'accord président Macky Sall. dafa gëm diine. d'accord te diine lu mu bëgg. juboo la bëgg. nit ñi. nekk benn génn si fitna. d'accord génn si wax ju ñaaw. génn si invective. d'accord dañ leen di xaar ci ay proposition ngeen ñëw ñu toog waxtaan. d'accord pencoo lu xew si réew mi jéem a seet lan lañ mën a def ba ku si nekk. parce que kuje gi soxna lañ leen sëñ Babacar. d' accord voilà réewu démocratie bu amul kuje. d' accord bu am doole. tout à fait merci beaucoup jërëjëf ma tontu la dàquñu nit. dóoruñu nit merci saagawuñu nit. d' accord xasuñu nit. d' accord léegi ñaari tontu la jàngaluñ ko kenn suñuy waajur jàngaluñ ko jàngaluñ jàngaluñ ko éducation morale. ni éducation civique. waaw monsieur Touré ñun lu yiw président Macky Sall lu yiw la. d' accord d' accord monsieur le ministre baal ma. léegi sa doléance yi dégg naa ko. waaw dama ciy tontu. waaw mais dañ koy defaale sa sa sa dernier mot. dama koy dama ciy tontu ci doléance. waaw waaw non non non nga def sa dernier mot ah, allez-y ah laa lay tontu <laughs> d'accord allez bi ci jiitu waaw mhm. mooy ngeen bàyyi PDS mu taxawal groupe parlementaire am ak opposition bi à l'Assemblée nationale ngeen bàyyi jalgati yoon Assemblée nationale mooy première règle bi ñaareelu règle bi waxal sama xarit président Macky Sall ne ko li ngay wax nii bu fekkee ne moom moo la ko yebal pour nga wax ko. damay wax rek bàyyi ma hypothèse. su ko bëggee na woote Versailles ñun waa Versailles lu mu wax rek ñun ci loolu la ñuy ko ñett réew mi li koy defar 2017 loolu parti démocratique sénégalais ak front bi mu bokk. 2017 maanaam. 2017 euh, date laa joxe. Ah, ñi ko li koy defar 2017. PDS ak ñi mu àndal dans l' opposition dinañ ci taxaw dinañ ci liggéey pour jubbanti. li fi jot a dëng. d'accord loolu loolu mooy ñetti tontu yi nga xam ne ma nga tàgguwaale. pour tàggu leen nag. Mhm. damay am tuuti maanaam regret. Mhm. ndax bi may ñëw fii pour euh, waxtaan faram fàccee leeral déglu naa la sa wax yëpp ba nga commencé ba léegi Youssouf sama xarit sama xarit Babacar gay la ak moral moral boobu taxul ñu teew fi xam tax dama jàpp ne qualité ak valeurs yi ngay développé fii di ko wax muy ay slogan mu bëri trop ci seen wax waaw. jërëjëf moral yooyu valeur yooyu xamal ne nu mu toll ci yow rek ëppee na ko ci ñun. du moins man mi toog jàkkaarloog yow. fu modestie ak humilité nag. je dis man kay lu leer laa wax dama ne. valeur yooyu laa wax nu mu toll rek. ëppee na ko fii loolu moo lay wan ne la bul jaaxle ci wàll woowu. Mm-hmm. parce que doomu ma ci gaalu xaj ba fekk ma ciy lekk. wax nga fi saaga xaste Sénégal yi may déglu xam nañ ne ba ma waxee commencé ba léegi tudd ma nit lu dul quelque rare fois où si suis obligé ku tudd lakk mburu tëdd dëkk pour que mu nekk assumer ay position bi ci des ay idée la fiy développé ak argument dama bëgg bu APR di amatee waxtaan ak man dama koy ñaan aussi waa TFM nañ ma dama koy ñaan d'accord ma am débat pour ay nekk ay idée mhm. sur des questions claires ay argument yu wóor ay chiffres yu wóor pour que sénégalais yi jële jàngat ci li ñuy wax. d'accord yow xam nga wóor wóor yàlla ne. fi ma jaar ak yow ba fii ñu yegsi moo tax am na lu baree baree bari ma mën ko muñ ngir yow. <laughs> munoo maa wax lu ma métti Youssouf. d'accord démb lay xool nga naan ma wéy ñun am na dañ mënoon démb avant ñu yegsi fii man nga loolu loolu lay mujjee ah. d'accord monsieur euh, lu ma lu may lu may tënkee. kàddu gi rek. Mhm. mooy yàlla ñu boole. Mhm. ñu bokk si benn réew. Mhm. réew mi nag ñun ñëpp ñoo war a jóg defar ko. comprendre euh, lu si am solo. mooy jaay doole mënulul sénégalais yi dara donc dañoo war a jóge ci seen. position boobu xeexal askan bi si ku jégi ñu xeexal askan bi. d'accord du dëgg. lépp loo xam ne nag ñoom. nga tàggoo xam nañ ko. Mhm. si suñu passé. waay waay waay waay waay nañ ko wax. Mhm. man buñ génnee léegi buñ génnee léegi ma ne la ndax yoroo foofu fa foofu sax as parce que wala mu carburant. waaw waaw mais waaw <laughs> waaw. monsieur Touré non mais c'est pas grave. monsieur le non dafa nag non. loolu lii yëpp dafa wone rek. Mm-hmm. lii yëpp dafa wone. Mm-hmm. que benn lañu. tout à fait comprendre nga. Mm-hmm. yàgg nañoo nekk. yàgg nañoo ànd yàgg nañoo waxtaan. donc lu may ñaan sëñ Babacar gay mooy ngeen taxaw si seen position. taxawaay bu jekk. di wax wax ju rafet. di jëf. jëf ju yiw. Mhm. nit day yiw. comprendre nga. Mhm. sénégalais yi kenn moomu leen. c'est bon baax na nga voilà loolu daal sëñ Pape Ngagne moom laa koy ñaan mu dellu si sur <laughs> terre d'accord jërëjëf voilà voilà mbokk yi doon ànd ak ñun ci seen euh, spécial débat faram fàcce euh, ñi ngi am mbégte doon ànd ak yéen di leen gërëm bu baax di gërëm suñu invité yi ñu ci àndaloon nag ku ci mel ni euh, le ministre d'État amee kaddu parti démocratique sénégalais Babacar Gaye ñu koy gërëm bu baax wax dëgg yàlla ci wuy si bi voilà ah, ñu ànd ci itam ak ki nga xam ni mooy le ministre Youssou Touré moom itam ñi ngi koy gërëm bu baax ci wuy si bi malgré ni mu koy expliqué expliqué ci début bi eh, ci wàllu yaramam terewul mu ñëw toog. clinique laa jógee loolu itam ñi ngi koy damay dellu pour fa. d' accord loolu loolu ñi ngi koy ñi ngi koy rafetlu. ci tey ñaan itam nga wér ak jàmm incha allah. Eh, kon mbokk yi mu nekkoon eh, seen émission Faram Facce ñuy gërëm bu baax Pierre Da Silva di gërëm Vieux Diouf ak Babacar Fall moom itam ci ni mu coordonné débat bi di gërëm Mamadou Ndiaye di leen wax ne émission bi di ngeen ko mën a suivre ci gfm point sn di ngeen ko mën a suivre itam ci Faram Facce l'officiel jërë ngeen jëf mbokk yi. bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fole mandat juróom-ñaari at la. danaa ko yemal.